mi noonu xam naa ne maanaam Souka Mbaye daane maa ngi annoncé ne pan musical victime net la ñu nuyu ko moom ma jigéen Diop Dieng Sall ñu ngi lay nuyu di la ziar waaye tamit di la jaale sa nijaay di ñaan yàlla xare ko aljanna. amiin amiin ajaratu jërëjëf merci beaucoup maa ngi lay fay bu baax a baax di la ziar di la ñaanal nag jàmm.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 ayca euh, sooy bu indi tey. Adja. Mhm. xam naa Modou mu baal ma rek wàññil ma tuuti oustaz ñu ngi lay nuyu bu baax a baax euh, tey nag yi ma annoncé woon defe naa dinaa ci dindi dinaa ci dindi benn Adja. ah euh, waaw parce que dafa am beneen bu ñu fi dab léegi muy Mami Cobra ak mhm. maam Ndiaye la ñu wax ni dañ leen a convoqué léegi fële ca cybercriminalité. waaw ndax daal wax yu ñaaw ak yu salte yi ñu dëkkoon a wax ci internet bi. ci ñetti fan yu ñu génn Sénégal yu bëree bëri nag naqarul nañ ko ba ci ñi nga xam ne bokkuñu dara man démb yem naa ci vidéo boo xam ne wax dëgg yàlla bokkuma ci ci famille bi waaye neexuma waxante xuloo mën naa am ci internet waxante mën naa ci internet ba mu des nag di dugg tudd ay maami jàmbur ak way juru jàmbur ak ay awra yi way juru jàmbur bay tudd bàyyi jàmbur jidle buy buy buy seq ak nit loolu dafa doy waar mu mel ni sax sénégalais yi bëree bëri ba ci Pawlish gisoon naa mu di ko wax muy loo xam ne comédie la mais bëgg nañ itamit régime bii di ñëw mu taxaw ci loolu bàyyi ci xel muy lii ne ci internet bi du lu salte maanaam il est temps que ñu am résime boo xam ni maanaam dafay yar ab peuple am Sa Ndiogou ko doon wax ci ba muy woteel euh, Ibra Fall Ibrahima Fall da ko dégg mun yor programme boo xam dañu ko lan mooy jàngoro Sénégal mu ni lan jikko yi kon nag il est temps que ñu am président boo xam dafay bàyyi xel ci Omar ak son yi bu mu toog ku ne toog këram ku ne di yàq ci gémmiñ lu mel ne xeme di influencer yeneen nit yi il est que ñu am lu mel noonu loolu kon mooy tax euh, bu sëñ Cheikh Thioro euh, sëñ Cheikh Thioro bi mu baal ma ñu bàyyi ba suba ci jomet incha allah dinañ ko indi ci suñu heure boobu 11h kon dañ koy njëkkee rek ak li nga xam ni mooy euh, poste bi nga xam ne moom la El Malick jox joxe alaaj Moodu muy weddi li source a bind tey ci suba ni GIGN ñoo yore kaaraange ak Ousmane Sonko tàqalikoo na ak ay garde corps ba boo seetlu ci suba sax ñu ñi def nañ ci benn euh, benn élément sukkandiku ci euh, loolu nga xam ne moom mooy li source a bind kon Omar foofu la ñuy dooree rek waaw kii ñëw na alaaji njogaan bi ñëw na dégg nga maam kon foofu la ñuy dooree moo Modou su fekkee ne disponible na rek nga daal di koy nga daal di voilà mi ngi noonu lii la euh, source a bind tey ci Omar ci ci suba wane ne Ousmane Sonko dafa sant ay garde corps am gërëm leen tàqalikoo na ak ñoom léegi waa GIGN ñoom ñoo yore kaaraangeem comme ni ñu ko defalee Jomaay léegi nag El Malick euh, mi nga xam ni defe naa moo yor communication parti bi moom ci boppam weddi na li nga xam ne mooy kii bi Omar ndax léegi lu lu journal yi jublu ci lii di xew ni maanaam diw tàqalikoo nag ay gàddu kooram. kii bi source bi leen seen source mu ñu bañ a fiable quoi source mu ne leen nax. Hmm. ki leen jox xibaar bi. ok mun leen leen nax. mais warul yam rek ci source pour man un journaliste euh, war nga mën a déplacé wu parce que kër Ousmane Sonko ñëpp xam nañ ko. Hmm. tey jii boo fa eggee bu dee nii waa GIGN ña fa boo xoolee aux alentours wala ñi wër kër gi GIGN am na ni ñuy mel. Hmm. boo fa demee rek di xam ne ñu ngi fa wala nekkuñu fa quoi. kon loolu jarul woon sax di bind ñu lay weddi. Hmm. waaw surtout ah nag euh, li ci ëpp ñiy def investigation lañ di génne yenn xibaar yi red chef bi Omar Ndiaye sama xarit la. dañ leen jox xibaar bi mais waroon nañ dem gës ko doog koo génnee. parce que man mii di wax ak yow keroog rek maa ngi koy wax Moodu. waaw man yëgoon naa ni. lu ma yëg la nag. waaw te source bu leer la ndax ndax xam naa ci dara. Mhm. mooy woon nañ Ousmane Sonko pour proposer ko sécurité. waaw pour euh, sécurité de gendarmerie comme GIGN ak yooyu. Mhm. mais ci xibaar yi ma am Ousmane Sonko da ko bañ. ok da kaa bañ parce que buggul woon. rompre digganteem mag ay militant am ak waa kii. ok garde corps am parce que dafa ne comme ñii la yàgg a nekkal. Mm. nan ko bàyyeek ñii rek parce que bu dee ni gendarmerie dafa ñëw di intervenir mooy jour bi Diomaye gagné. bu mm-hmm. bëggoon yóbbante gendarmerie. day dox ci digganteem ak askan wi alors ko moom dafa bëgg ba léegi di des ak ay militant am bu ñu ko bëggee seet seet si ko nga ay garde corps tam bu ñu ko bëggee jege jege ko. loolu Ousmane Sonko moom tontu tontu woon na loolu. Mhm. mais kon du ñàkk ni moom proposition yi ñoom yooyu leen yëgoon xam ne des fois les journalistes nan ma baal dafa am ay questions yu dangereux yoo xam ne dama gis ni ba jomaay faloo ba léegi ñu ngi koy évoqué. Mhm. alors que même question yooyu ci domaine sécurité assemblée kenn sax du ci débat. Mhm. assemblée nationale ministre des forces armées bu ñëwee. dañuy voté euh, sant débat rek dem. mais maa ngi gis bis bi dem jomaay demee ci hôtel bi. def déclaration bi les gens se posent des naan est-ce que amoon na sécurité ñan ñoo ko wéroon sécurité am nii alors que loolu waroo ko poser dans un débat. Mhm. loolu tax après jubanti am na ci. ban ne sax ki jiite GIGN. Mhm. moo accompagné woon Diomaye. Sénégal état bu mag la mais daf ci am sujet yoo xam ne pour man jarul ñuy fuyeete foofu benn ko falu ñu ko du président de la République amagul benn ndombal tànk. Mhm. ci côté boobu tey jii boo nee tey jii. waa GIGN ñoo ko wër di ay garde corps am yëpp libéré na leen da ngay ruube quoi da bëgg wax ne comme léegi ñoom ñi ngi commencé di nguuru quoi. d'accord maanaam day nekk benn genre manipulation boo xam ne macha allah mais heureusement Ousmane Sonko a compris mais proposé nañ ko ko moom d'accord mais da ko bañ moom jërëjëf Omar mm-hmm. <laughs> ma jigéen mu mel xabaar ba El Malick weddi na ko li source a bindoon kon source am na ko seetiwaat waaw d'habitude dama koy suivre ci page Facebook am. Mhm. Euh, c'est pas la première fois itam ñuy joxe information ci Pastef muy muy ñëw di ko di ko weddi di wax ne message yi ñuy informé euh, fake la. Mhm. mais euh, li Omar di wax ci journaliste yi même su fekkee am nga source sax euh, da nga ci yokk lu ci bokkul parce que soo taxawee te dégguloo fenn fu Ousmane ko sante gërëm ay garde corps loolu boole nga ci message bi information bi nga doon joxe loo xamante ni nii bokk ci. Mhm. kon donc même su fekkee ni Omar nii lii muy wax nii dëgg sax dañoo waroon a yem ci li nga xamante ni nii moom la ñu wax mais taxaw di wax ne euh, présidencement Ousmane Sonko dafa sant ay tagg tàggali tàggalikoo na ak ay ay ay ay ay ay garde corps yi ko yoroon démb. Oh. Euh, sant na leen gërëm na leen te loolu yow leer na ni amul benn source boo xamante ne ni bu fiable la bu war a tax nga mën a joxe boobu la information loolu aussi baaxul son yi que ñoom lépp loo xam ne rek euh, ay information yu wér la ñoom bañ na ko ba dañuy wax seen i ay militant de leen ñu déglu information bu jugewul ci Pastef wala ci ki yore seen communication comme El Malick mii ngay tudd man hmm. ngeen a jàpp ni du lu dëgg ba tant que ñoom ñëwuñu taxaw avéré que ni lii kat dëgg la wala lii du dëgg ñu doog a mën a comprendre mais di joxe information nii pour rien wala pour manipuler hmm. loolu moom euh, baaxul d'accord mu mel ni xabaar ba woon ci suba source a source am nax na ko waaw waaw source a source a ñoom ñoom journaliste ya fa nekk ñoom dañuy dañuy euh, wàcc terrain bi et puis dañuy bay bala ñuy bind normalement dañuy def ay investigation mais man je me demande journal boo xamante ni yow leer na li ngay wax ni amul mhm. nga génne ko nit ñi liir ko nga yàq sa crédibilité man je crois que ne fake news jaru ko mhm. jaru ko pourquoi ñuy def loolu ci ban buy la ñu lan mooy lan mooy motivation bi laay laajte. Mhm. loo xam ne amul bu amoon nit ñi dañ koy constater mais jarul bind. d'accord wala pour bëgg jaay la xam. macha allah Ndiogou. motivation ci suba ñoo ko bokkoon traité ndox ci suba moo tax ci gisoo boo bi boo seetee bi nga ma laajee ci kii bi. Mhm. ci beneen côté balaa dem foofu ndugg ma fa sax moom laa doon wax Assane sànq ma ne ko euh, wu mu wóoluwuma leen. woon hmm. ba ñu waxee wax ji duggutoon sama bopp waaw mënoo ko dama ko esquiver hmm. euh, xam nga posé nga ma question bi waaw laaj nga ma ko mais boo xoolee ci beneen ba balaa dem xam nga ña da nga ko cumulé woon. dama ko cumulé ak euh, Diomaye li mu wax ci. caisse noire bi ci caisse noire bi laa wax ak ci loolu laa expliqué. Hmm. Euh, ba yow it yàlla dimbali ma nga nelaw ba laajaatoo ma ci parce que. ku dëgër bopp nga ci yenn yi tem nga ne ma waat euh, lii ñëwoo ci waaye dafa mel ni yàlla daf laa tënk ba waxoon ne lii ñëwoo ci bi ko waxul nag di tëj ma ne alhamdulilah euh, lii rëcc naa ci. yaa ma sànni xeer parce que ñii wóoluwuma leen. Euh, xam nga nag. waaw. parents yi. journal yi dañoo ndóol dañoo yorut. yorut yoruñu. waaw dañoo yorut te gars yi nga xamante ne bii ñoo nekk opposition jamono ji ñu toll nii dañoo yor. Euh, ma nag gis nga dafa am lu bari loo xam ni euh, yoon moo koy régler ji ci kanam. Mm-hmm. waaw parce que di xëy di bind lu la neex. loolu moom xam naa ci kanam dina dakk bu boobaa nag di nga dégg presque bi daal ne luñ ñën singilee te fekk ne ñoom ñoo tàmm ak jubadi waaw maanaam am te bind am te que tàmm jubadi parce que réew mi dafa tolloon foo xamante ni fii tey bindalal nit ki lu la neex mais kenn du la wax dara mm-hmm. mbind leen rek la leen yoon may bu subaa ñu piblier démenti bu El Malick mais yoon bi ci am ma ma yeggale da ngaa joxe sa xalaat ci journaliste yi man damay joxe sama xalaat ah, mais c'est la may wax nii waaw mais mais dama la a wax nag ne la a wax naa ci loolu dama ne journaliste mm. am loo xamante ni dañ ko tàmm mooy di bindal nit lu amut tàmm te fekk da nga ci sa yaa ngi dégg te camp bi ñuy bindal nga xam ne ñoo yor nguur gi fi mu toll nii dañ leen a yàgg bindal ba tàmm laago la dañoo tàmm di leen bindal lu leen neex. Mhm. di leen dugal ci lu leen neex. Mhm. saa ñu xëyee nel bindal leen lu ne fàng. léegi nag dama ne loolu. Mhm. bu yoon ñëwee journaliste bu mooy tuut di bindal nit ñi naka sudut noonu ëllëg mën nañ leen di teg ci yoon. ñu naan da nga acharné wu ci journaliste yi te fekk ne du acharné wu. fekk yow mais c'est parce que fekk ne journaliste yi ñoo tàmm benn mbir ba laago ci. comprendre nga. parce que am na yu bari yoo xamante ni bi dañ ko daan def mais. am na ñoo xam ne dañ doon tayee la dem ci yoon parce que lu tax ñu tayee la dem ci dañ naan bu ma demee du ma ci jëlee résultat comprendre su ma demee du dox jaru ko quoi mais nag am na koo xam ni bu ko leeree ni yoon moom léegi mi ngi fi bu ma toogee fii waxal nit lu ko xamante ni bi tegu ko fenn waaye jox ma yóbbu ci yoon dëgg la ne ma saa li nga ma waxal nii tegoo ko fen mm-hmm. comprendre boobaa yoon a koy lijjanti mm-hmm. moo tax il faut nit ñi xam ni Euh, bu ñu waxee état de droit par exemple di nga gis ñu bañ naan non état de dafa war a ñëw te fekk ne bu ñëwee ñoom lay njëkk a dal ci seen kaw parce que nekkuñu ci yoon te ñu ngi wax naan dafa war a ñëw hmm. comprendre loolu mooy li nga xamante ne bi nag moom laay wax ci mbir yi parce que tey su fekkante ne bi ñoom dañ cee yokk maanaam li ma jigéen wax sànq loolu mooy wax ji parce que bu fekkonte ni dañoo wax yëg nañ mais dañ ne gërëm na leen maanaam wax nañ sax la Ousmane Sonko waxul ñoo ko ca yokkal gërëm na leen seetal loolu gërëm na leen. tàggatook ak ñoom. waaw tàggatoo ak ñoom. seetal loolu. Mhm. léegi yow bi nga déggee ne Basirou ak Ousmane Sonko ku nekk jo te gis nga ni ko cumulé dañ jox nañ Basirou Basirou kii bee koy loolu kii tamit ñoo koy loolu. waaw man léegi foofu xam nga lan ngay njëkk a gis. Ah. mooy ñaari président de la ñam maanaam gis nga comparaison boobu ñuy def. Mm. maanaam jamono jii loolu lañ bëgg a dugal ci bopp nit ñi fi mu toll nii xam nga lu ñu bëgg. Mm. bit bi yëpp mooy fexe. di wax naan ñaari président ñaari président ba Ousmane Sonko ne booy. doxalal bàyyi man ma toogee ne le balaa ñuy yàq loolu nag du fi amee. parce que loolu la ñuy liggéey fi mu toll nii. pour hmm. bëgg Ousmane reculer dañ naan nañ ko puus ci miir bi rek. Hmm. Ousmane moom bés bu ñu ko puusee. léegi mu bàyyi dina dina fier dellu ginnaaw. te xamul ni la mu déclaré woon fële ca mbuur loolu la nit ñi bëgg. mu accompagner ko ñu ànd liggéey. d'accord réew mi. parce que projet lañ yor. d'accord loolu lañ bëgg mais fi mu toll nii dañuy kii pour écarter. d'accord. jërëjëf alaaji kon ñu jàll ci geneen bi lii lépp tardek bëtik tey la moo tax ñu ngi ciy jéggalu bu baax a baax sinon moo tax 16 heures euh, moo tax ba heure bi jot ni gis ngeen ko ndax bëtti tey dafa naaje ah kan moo tardé yéen yéen a damaa gis saa doon woo bu yàgg naan la yàgg laaj ko moom kañ laa ko woo d'accord nañ wax nañ wax non non nañ ko leeral maa la njëkk a woo jot moo la a woo sa diggante yàlla ah, woo na la sama da ngaa woor de ci sama kanam woo na la jot sama diggante yàlla da nga cee xaj da ngaa woor sama diggante yàlla woo ma aywa <laughs> léegi <laughs> léegi nag kon euh, kon lu ñuy def euh, ñaari si ñett fi des jël na bàyyi woon naa benn bi. waa nee nga ci Mame Ndiaye ak Mami Kopra. Mami ak dese naa beneen. ak ban. Hmm? ban. Euh, son la de. 14 minutes waaw ñoom Mame Ndiaye mi ngay jël du ngeen ko fi riitambalee nag fii moom du ngeen ko fi riitambalee. d'accord kon bala ñoo ñëw ci ñoom Mame Ndiaye Kopra bi Mame Ndiaye bi ak Mami bi. Alaaji moodu dafa am ay vidéo yoo xam ne maa ngi ko doon jël defe naa di woon naa leen ko ni leen fii ak jeudi dinaa indi benn par benn xam naa Modou ngi may jabut rek waaye may ñu ko ndax si ndax si waaw heure wàccam jot na Alaaji Modou waaw. mooy mooy monté bétti. waaw ñu rek euh, Alaaji Modou. Papa Ndiaye boo yaa ngi koy tooñ. balance. moom daal dajale nañ seen vidéo yu bari xam nga ñi woon ci sëriñ si tey ci chroniqueur yi laa ñëw ak lenn ci journaliste yi gars yi defal nañ leen benn buu alaaji Modou ñu déglu ko ci dellu si waat fan la ñëpp di jaar fii ba gagné premier tour man loolu laa gëm donc euh, lu ko namoon naa nag tey ñu ne ma Khalifa Babacar Sall dina gagné premier tour wante fu démocratie Sénégal toll fu euh, Sénégal yi tollu ci yeew ak ci gëm seen bopp ak euh, am lu ñu namm ci ëllëgu Sénégal gëmuma suma fan la ñëpp mën a jaar ba gagné premier tour mooy suma xaar bu gàtt. plan plan Z kay parce que même bi baaxul bee bi ni eh, ah, baaxul bi Bassirou Diomaye baaxul ci Ousmane Sonko doo dem Bassirou ah, Diomaye baaxul ah. c'est-à-dire expliquer loolu ah Bassirou mënut a dem ah expliquer parce que bi nga xamante ne moo ko bëgg a investir dañ ko dissoudre mais après ah, ah mais parti bu ñu dissoudre nan nan la ñuy jëlee parti dissoudre ko ak motif yi nga xam ne moom la ñu évoqué pour motiver dissolution boobu parti boobu di investir nit ah, ñu ne eh, non ci texte laa ko teg ko ban texte ko wax non dama bëgg nga ne ma texte bi moo wax loolu électoral bi la nekk wax loolu ci ar ci ar ci ar ci day faatu bàyyi leen di jaawale jaawale wu ma li yóbbu Sonko dafay bàyyi Bassirou Diomaye eh. parti bi ñu dissoudre luñ ci wax luñ ci wax. non wax ma. non xam luñ ci wax de. Ah. dañ pas batum lañ ci dafa tax ñu nangu seeni mandat <laughs> non soxna si. waaw. Ah. Euh, xam nga Pastef chaque jour moo wax ak ñoom te heure bu ñu demee rek ma yaay leen. ban ban jàngat nga ci ban jàngat ma ci am moo di. Hmm. c'est Ousmane Sonko. tànn na tànnul. mooy lan loolu. xam nga lan mooy li tekki tey daanaka xel dafa li mu tënkoo moom Ousmane Sonko la Bassirou Diomaye Faye tënkoo. Mm-hmm. mosuma ko wax. Mm-hmm. tey est-ce que Bassirou Diomaye Faye nekk na ci condition ya nga xamee ni mën naa concourir. à chance égale avec les autres candidats yaakaaruma ko. mais am na ay candidats yoo xam ne nekk nañu prison et pourtant nekk candidat dem élection. leer laa leen wax xam nga man nag suñu borom yàlla dogal na ne man lu ma leen mës a wax gis ngeen ko. kenn mësuma vaar te combat bu ma porté hmm. lu ma leen mës a wax teg ngeen ci seen bët. Hmm. kenn mësuma vaar ci kattanu yàlla yàlla dimbale na ma ko te lu ma combat bu ma porté gagné naa ko. ma ne tant que saison des pluies jàllul Sénégal élection du fi am. ah loolu maa la ko wax tant que saison des pluies jàll élection du am Sénégal waaw non man weddi wala mu ngi noonu Papa Ndiaye la journaliste chroniqueur judiciaire ma jigéen Diop wala ma dalee ci Omar bun Xataab bi Omar ñi ma la indil di ab politiciens yi lañ ci jël moom rek moo ci def waaye ñi seen ñëpp ay journalistes yu am xam-xam lañu yoo xam ni ku ci nekk danga daan météo Sénégal yi di ci teg seen bët ba Pape Ndiaye wax na ko ne lu ma sa wax rek teg nañ suñu bët léegi nag fan nga jàpp ni ci xam-xam la wala information bu ñu leen doon jox ba tax ñu dëkkal ci nopp nit ñi ni parti bu ñu des désoudre nit mënu caa génne ba pare nekk candidat ndekki kooku ñu doon wax moo leen nar a jiite. am na li naan booy bëgg bëggal ci dëgg booy bañ bañal ci dëgg. Mm-hmm. ndax dëgg rek mooy mujj. waaw te dafa am lu Youssou Ndour doon wax naan maanaam journa journaliste warul yokk warul wàññi liggéeyam rek lay def. Mm-hmm. léegi nag bu dee da nga wàcc yoon boobu. Mm-hmm. ba nekk ci beneen logique boo xam ne yow du sa ànd maanaam li naan quoi ci ànd ànd boo dem fekk keneen toog ci. dama gis ni ñu ëpp ci ñoom danoo wàccoon seen ànd danoo nekkoon ci leneen lu dul journalisme. parce que ñi nekkoon ci journalisme di def seen liggéey correctement leblawuñu fayekuñu comme ni ko Sidi doon waxee. ñoo ñu tey ils sont à l'aise maanaam toog mën a wax même sax bu ñuy critiquer Diomaye ils son à l'aise parce que dañuy am légitimité pour mën a wax ñu dégg leen. ok parce que lan doon wax démb. moo leen di may crédibilité tey jii bu ñu waxee même bu ci nit ñi àndul ak ñoom mën leen a déglu. si si ñi nag wa ëpp ci ñoom waxewuñu woon. xam-xam ab objectivité comme journaliste. Mm. dañ doon waxe li ñu seen bëgg-bëgg. te des fois li gën a dangereux ci métier bi ñuy def maanaam ñu ñuy jaawle ñuy bëgg-bëgg ak li war a ne. des fois suñuy bëgg-bëgg nañ ko bàyyi si biti bu ñu toogee ñu doon ku ñu war a doon. Mm-hmm. léegi nag loolu moo leen yóbbee lii tey benn bëgguñu woon Diomaye doon président. bëgguñu woon mu nekk candidat yooyu yëpp seen bëgg-bëgg la. parce que boo xoolee Ndeye Fatou euh, kii Elma kii Sëñ Saliou. da ngay sentir ni Sëñ Saliou mu ngi koy delloosiwaat à chaque fois. mais bañ na mu mbir boo koy wax dafa war a am dalin comme yéen ñuy jàng ni ngeen ko wax dafa a am dalin. maanaam daa a sukkandiku. boo gisee sax ñu ne diw moo ko solo parce que à chaque fois te tey jii yow da wax wax joo xam ne du sànni politiquement ak juridiquement mënoo indi benn texte wala benn article. Mhm. bu mën a dajal wax jooju. li nga teg ko ci sa bakkan. ak si say bëgg-bëgg wala yow waxoo mais da lay waxloo waaw mm-hmm. ah, waxoo parce da lay waxloo parce que am na ci ñoo xam ne ay juriste lañ seen biir bëgguma tudd seen tur juriste lañ te ci wàllu droit daan nañu wax lii mais bi ñu demee ba wàcc seen ànd bëgg a dugg ci leneen mm. moo leen yóbbee lii mais li njëkkoon a ne bu ñu ci desoon mm. parce que un journaliste mun na juma nekk ci analyse jàpp ne li mu war a am fekk amul mm-hmm. xam nga ji am na loo xam ne tey ji man mënoon naa ko mu tombee ñu ne Omar Gueye garaaw mu ni ma cinquante trois cinquante quatre pour cent élection yi. du ko weesu mu ni ma palais bi ñoom seen sondage sax yu ñu am foofu la leen dugal. mu ni ma du génn foofu cinquante quatre cinquante te démb bi résultat yi génne te loolu bi nekk suba la élection la. laa waxtaan ak nit mu wax ma ko ba ma wax ko beneen nit. mais comme man c'est pas mon di wax naan li mooy xew ak li ma li parce que loolu météo la quoi parce que ñun tam duñu yàlla duñ dara dañuy def analyse des fois suñu bëgg-bëgg ak suñuy bañ nañ ko teg fële te am objectivité te yem ci sunu liggéey rek te xam ne du yàlla du yonent mais boo dee leble di fay bor fii rek ngay mujj aussi aywa ma jigéen noo gisee li ma la tegal léegi ñii dañ ñëwoon du fi amee yàlla mujj na koo def <laughs> waaw sooy bu xanaa di euh, wax ne rek Barthélemy Diaz moom wax fa dëgg yàlla moom du wax bi sax la ma sa wax parce que toog na si beneen euh, jotaay wax ne euh, élection deuxième tour ñëpp xam nañ ni kenn mënul gagner élection yi ci premier tour euh, bàkku ne moom mooy borom ndakaaru peut-être ak xalifa ñoom moom àdduna moo leen moo leen euh, àtte ak ñi nga xamante ne ni ñoo di sénégalais yi parce mm. que li ñu njortoon ni moom moo am yëpp tey moo jiite Dakar ba tey di nu leen àdduna di tàqale. waaw parce que dañu jàpp ni bu bu taxawee di wax ne moom ke moom moo fal boppam. Hmm. àdduna di dox ba mu taxaw ne yeneen élection dina am tey jii nii mu mën a taxawaat boo seetloo sax si ñi njëkk a félicité Bassirou Diomaye fay ci la bokk ne nañ nangu ne yàlla yàlla dogal kon donc seen i waxi démb ak seen i waxi tey moom moo leen. moom moo leen moo tax nit yi xamaat ñoom ñooy kan ci seen mm. jëmmi ba parce que boo jugee ci kaw daanu ci suuf mm. te ba ngay nekk euh, ba nga tollee ci diggante xamatoo foo taxawoon na ngaa mësoon a taxaw lànk ne maa ngi ci kaw ba léegi tey mm. àdduna yey la euh, leneen di ma seetlu par exemple ay ñoom ndey faatoog ñoom euh, ma jambal ñoom da ngay sentir que ni genre doomu aadama sax warul di taxaw di wax ni diw dafa bañ nit mais da nga seeni kàddu ak ni ñuy waxee froid bi muy am da ngay sentir ni ñii nii. Mhm. en lañu am ci peut-être ci ci ci kuréel gi nga xamante ne ni ki ñuy waxal Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye fay parce que mi nga koy laaj ba di ko wax charge yi ñu teg Ousmane Sonko moom la ñu teg euh, Bassirou mais Bassirou kenn mosu ko woon condamné mais dégg nga la mu ko tontu. carrément mooy da nga doon sant ni ñoom mosuñu woon bëgg ni Bassirou mii dina nekk président Ousmane sonk it dina nekk président mais yàlla suñu borom fa muy dogalee. ak fa muy noppee di tëral ay mbiram doomu aadama munu fa àgg ba di xam exactement lan moo war a mën a xew suba. Pape njaay nag moom peut-être moom xam naa message bu mu bëggoon gars yi doon wax souvent ne élection du am du am mu àggee leen ko parce que peut-être mm. moment boobu dañ doon wax tolloon nañ ci jiixi jaaxa ñi naan décembre ñi naan juin. ba dialogue bi amee aussi gis nga ñu jàppoon dat boo xam ne 2 juin la. Mm. mu ni nawet. feet yeeg événement yi yooyu yëpp te loolu bu ñu ko toppoon amaana tey jii ñoo ngi woon ci stade bi ñu nekk dootu ñu ñu woon xam kan mooy nekk président mais yàlla suñu borom ni mu ko bëggee rek noonu lay amee macha allah maa ngi ah. nuyuwaale oustaz Talasu Souleymane nee na woon nan la ñuy wooree di di di di di campagne <laughs> waaw l'islam nangam yàlla dogale ni mujj nañ caa korit eh, eh, tànn njiit gannaaw ba nag ajaa ñii dañ woon daal loolu mënul nekk eh, daal tabarkal lan mënul hmm? bokk ci ñu tas parti bi yow nga ñëw bokk ci ay élection dañ ñëwoon loolu mënul nekk moo tax woon moo tax ma jàmbal waa ji daan li yóbbu Ousmane du fi bàyyi Bachir waaw man de man de euh, euh, li tax euh, ñu ko doon wax xawma fu ñu ko teg parce que man maîtriser ma teg si donc ay journaliste lañu non non yooyu ay ay ay article la yu kenn xamul la ci teg c'est trop juridique yooyu man mënuma ko maîtriser mais <coughs> mhm. sa seen xalaatu bopp lañ xam nga ñun dañuy indi fii sujet ku nekk wax ci sa xalaatu bopp. dama xalaat ni ku nekk sa xalaatu bopp nga doon demee rek. Ah. ma ni fekk yàlla wax ci taw bi nee nañu woon duñ duñ élection te taw bi jàllut. <laughs> <laughs> alaaji euh, ñi ma la nii de bii passé sëriñ si laa jëloon jeexul sax naam waaye dama mujj baax. <laughs> <laughs> bari nañ lool waaw damaa mujj baax. waaw léegi nag noo gisee ñii mën a tegal tey ay chroniqueur. Mhm. Mhm. waa xam nga euh, ma ñoom ma jambal ak Yirim. Mhm. Euh, li ñu wax dëgg la. li fi li fi li fi li yóbbu Ousmane mu campagne yi du fa bàyyi Basir parce que génn nañ ñoom ñëpp dem campagne ah, <laughs> mën nañ ko interpréter ñoom mën nañoo génn ne wax daa dëgg hmm. parce que li fi bàyyi kii du fi bàyyi waaw donte nag euh, sens bi ñu doon waxee euh, ay xibaar la woon yoo xamante ne bi jox nañ leen ay wax la yu ñu leen jox euh, ngir ñu waxoon ko pour décourager masse bi loolu rek moo jublu woon mët bi ñu defoon ñoom ñëpp dajaloo ci télé yi ku ci nekk di wax di wane ni affaire yi du jàll mais ñi leen contrecarré la nit ñi gën a gëm ko ñoom ñoom dañu amatut crédibilité maanaam ñi doon porté woon mbir mi dañoo amatut crédibilité ci ñi ñuy waxal léegi ñi leen contre contrecarré woon wax leen ne leen li ngeen di wax tegu leen ko fenn parce que lii ak lii ñoo ñoo ñoo gënoon a crédible ñi ñëw porté comme ñi porté message bale ok léegi loolu moo tax seen mission devient mission impossible mm. parce mënuñu woon réussir yëf yi parce nit ñi dañ leen a gëmatut d'accord da nga ci tànn kenn par kenn rek bu koo ci xool rek am na fu ko sénégalais yi classé ba pare mm. léegi ñooñu bu ñu leen jëlaatee pour ñu def yi ji mission bi day nekk mission impossible parce que bu ñu réussiroon lool rek mm. mooy gars yi dañuy bàyyeeku sénégalais bu nekk jéem a xooli feneen ah loolu lañ ci jublu waaw lañ ci jublu woon de jubluwaay bi yëpp loolu la woon mais ñoom xamoon nañ ne li ñuy wax teguwut ci texte teguwut ci dara mais nañu inondé euh, rajo yeeg télé yi wax wax yi ne mënta ne donc dugal ci bopp nit ñi neleen leen Ousmane Sonko mënta bokk Jomaay mënta bokk ñu dolli ci ne kenn képp ku bokk Pastef ku mës a bokk Pastef sax mënoo bokk mu gi sax ñu dolli ci ne ku mës a xaritoog sax waa Pastef doo bokk mhm. yokkoon nañ ci loolu. d'accord maanaam même boo xaritoog waa Pastef sax doo bokk. Cheikh Tidiane Dièye fa lañ ko dugaloon Guy Marius Sagna néewoon ko nee xaritu pat du bokk parce que jege woon nañu Ousmane Sonko. Mm-hmm. waaw loolu yëpp foofu lañ dugaloon. Cheikh Tidiane Dièye boo boole nañ léegi mbir mi léegi ñeneen ñi doon ñëw nag dañ doon argumenté di teg yëf yi fu leer di wax ñu dégg tamit ay intellectuel ay professeurs de droit yu xam génn di wax ñooñu tamit ñu jara gërëm lañ. parce ñooñu ñoo tax. ndaw ñeeg ñëpp di leen déglu. di leen bàyyi xel ba tax yëf yi. Hmm. mënta jàll. d'accord loolu moo tax ñoom bi ñu fayiree seen mission rek boobu la xam ni eh, yëf yi moom jeex na. d'accord waaw Pam Ndiaye euh. nag moom wax na ne euh, nawet. defe naa ni moom. moom wax na dëgg moom parce que taw na. kii ba waaw ah, Pam wax dëgg la taw na ci guddi ci guddi ci bis bi. taw na waaw wax na dëgg de <laughs> tawut. taw na taw na kay. taw na Thiès de taw na foofu. taw na géejooy gi. taw na. taw at géejooy taw na. ba ma ne yaay fàtte ba léegi boo dee mi ngi taw. ma nekk ci kaw après yow mi sa laaj muy taw mën na mi ngi taw. taw muy taw. kon Pape jaay li mu waxoon ne nawet bi wax dëgg fa yàlla lenn nag mu fa la defee erreur. waa nawet bi jàll parce que ci biir nawet bi. lañ lañ lañ foofu yow foofu daal bëggoon a dégg. waaw foofu lañ defee foofu la defee erreur waaw parce que da ne woon faaw nawet bi jàll waaye ci nawet bi. lañu élection parce que bi muy taw lañu lañuy lañ wote kon ci nawet bi lañ lañ loolu waaw léegi nag moom nee na euh, kenn mosu ko vaar combat boo combat yi mu fi kii yëpp da koo gañe waa léegi ban nag man man man combat yi ban la Pam Ndiaye defoon ba gañe ko man combat yi combat nee na combat bu ma sa porté waaw man combat yi kañ laa bëgg a xam man moom combat yi ah, combat dossier yi mu doon défendre dossier yi mu fi daan ñaar dossier la fi défendre gañe ko moom Pam Ndiaye waaw mais combat yi moom loo xam ne bii maanaam xam nga tey ne combat yi ma kii yéen xam ngeen bu baax li ma leen wax parce que combat a kii gagné naa ko kon donc ñun lay waxal. ñun lay wax waaw léegi yan combat la kañ. Pape Ndiaye xam nga combat yi mu gagné. moom ah, la xeexal ba ban la gagné kañ. dama bëgg a ne ah, am la laaj bi mu laaj dafa am solo. ñu nga journaliste yi su am loo xam ne du seen cër. Hmm. te ñoom ñëpp dañuy dañoo commencé di daan ci loolu dama dégg dañ naan la danoo dem ba bëgg a am doole yi fal ak folli li que le journaliste pour man bu yemee ci liggéeyam warul tiitooroon ni sax diw maa ko fal. Mm-hmm. wala diw maa ko folli man da ngay gis 2000 ñu non non les journalistes 2012 bii nii les journalistes c'est pas leur rôle. cest bu dee ni bu dee dem ba war a egg foofu les journalistes ci mën a fal mën a kon defuñu woon seen liggéey normalement parce que seen liggéey. du fal nit jàppale nit mu falu. sooy bu ah. ma ni journaliste seen liggéey. du jàppale nit mu fal wala jàppale wala xeex nit mu folleeku. non dama kii l' essentiel mooy. nañ nañ joxe information. ayca Omar man loolu laa gëm quoi c'est-à-dire dem foofu rek comme li Sadio wax nii. waaw ayca man foofu rek pour. pour les koy saw ñu te kii a këfin la. pour les door ba hmm? actualité la oh, voilà kon mi ngi noonu kon voilà waaw kon Modou mu jàppale ndaw si mu ngi waaye bu dee yor na photo yi nañu ko affiché muy ñaari soxna yoo xam ne Omar ñaari ñii man bi ma déggee seen wax yi sax daf ma xaw a jaaxal parce que dañ doon wax ne ni ay xarit lañu kenn mënta dugg seen diggante ñi ngi déggante mais li ma dégg seen nopp démb maanaam ñimewu ma toogandoo sax man sama bi may bi ma koy déglu mm-hmm. maa ngi doog sama soxna ak sama doom mais dama wàññi téléphone bi ndax wax ju mm-hmm. a ndax lii commencé am dafa nekk yoon wu ñuy jaarale pour wax ni nit amatul droit nekk ci réseaux sociaux yi di wax lu la neex ak fu la neexee mm-hmm. voilà euh, sooy bu yi baax na lool mais dafa am ñaar yoo xam ne da ko yàq. Hmm. te ñii nga wane moo tax ak ñeneen moo tax yenn saay bu ma koy xool sama xel di ci dem. Hmm. lu ma mës sa wax la nag sama xel da ciy doom rek ma xalaat ko ma ni daf ci am ñoo xam ne ñi daan maanaam ñi daan génn guddi. Hmm. ñooy génn bëccëg léegi. ñi daan génn. guddi ñooy génn bëccëg. waa ayca léegi ñu jox leen kàddu bëccëg. Omar ay wax nga wax de. waaw ñu jox leen kàddu bëccëg ñu war a wax ñoom. ñooñ mënuñu wax jàmm. dégg naa mais réseaux sociaux moo leen may opportunité pour ñu mën a génn bëccëg di wax moo tax lu ñu wax njombe lay doon. dëgg la daf ci am ñoo xam ne tey jii bu bu nekkoon société avant réseaux sociaux ñooñ ñu waroon di noppi loola. maanaam mm. ñoom doon war di noppi. Mm. bokkuñu ci société bi amuñu yow amuñu mat amuñu yar amuñu tegginu wax ci penc. Mm. léegi réseaux sociaux may leen opportunité ñu mën a wax ci penc moo waral tey jii dérive yi di am. parce que bari na ci ñoom ñoo xam ne tey jii bu ñu waxee rek da xam ne ñii waruñu wax ci place publique parce que place publique ñi ci war a wax ñi ñu war a tàggat la wala ñu am fu ñu yaroo wala ñu am fu ñu baaxoo ba mën a am jomb-jomb mën a am yu ñuy seexloog ñoom seen mais bu ñu waxee da ngay xam ne ñii réseaux sociaux ay victimes dëgg lañ d'accord victime bi nga wax ay victime lan mm-hmm. parce que ay nit yu waroon noppi lan wala ñoo xam ne bu waree wax da leen war a tëj léegi ñu may leen opportunité ñu war a wax ci penc moo tax duñu wax jàmm mukk macha allah mm-hmm. maj waaw sooy bu wax dëgg yàlla gis nga ñii seen ànd bi ca début ba nga doon xam ni euh, day ñaawi ji parce que souvent euh, soo gisee seen dajaloo bi ñu doon def rek commencement bi sax amoon na ay coow yu ci jotoon a am bi leen biisu ngoone dajalee pour ñu doon. dë li ma li ma li ma fekk fii léegi mooy. Mm-hmm. bàyyi nañ leen mais dañ leen avertir. fu ne ni leen dérive bu ndaw buñ ko defaatee lu jëm ci lu mel noonu mhm. bu ñëwee xam nañu leen ciy fekk kon muy xabaar boo xam ne jërëjëf Alaaji Modou Diouf ci complicité waaw foofu foofu réew mi war a toll sax son yi bu mhm. parce que gis nga jigéen seen i ànd d'habitude nii lay li nii lay jur ay yaamane maane la diw moo wax maa wax ngeen dem ba di saagante te surtout fi ngeen koy defee bu fekkoon en privé la sax yéen ñaa ngeen jàkkaarloo rayante leen ñun suñu yoon nekku ci mhm. mais bu fekkee dangeen toog ci public boo xamante ne ni xale mag ndaw ñëpp ñoo koy seetaan kii di saaga diw yow yaa def lii sama papa jiitle sama nii nangam xale yëpp di ci teg seen bët loolu bu fekkee ne dañoo toll foo xamante ne nii surtout ñii ñëw ne dañu bëgg defaraat réew mi defaraat jikko yi gis nga son yu bu réew mm. boo koy boo ko bëggee defar te jikko yi normaluñu rek da ngay sonn rek mais doo ko defar mukk mais ñoom lan la ñuy xuloo maa la ëpp xaalis yaa ngi rangale say oto maanaam fii am na ñoo xamante ne nii dañoo yor lu dul jeex son yu bu mhm. te kenn xamalu leen dara kenn déggu leen ci lenn mhm. mais tout le ay werante ay jigéen ñoo xam ne yéen dangeen ne ay femme battante ngeen ku nekk yaa ngi wut loo xamante ne nii yaa ngi koy teralee sa waajur pour pourquoi ngeen di toog di weerante ku nekk di xawi sutura moroomam yamul ci ñoom ñaar rek am na beneen histoire bu ñuy dégg si affaire Euh, joojo la xawma ak beneen femme ku nekk di wax joojo mooy ki nekk fii ci euh, rond-point Bougane bi Assane Tuddee foofu la nekk di jaay ak beneen moroomam jaaykat la ñoo bokk lu ñuy jaay mais chaque jour rek da gis ku ci nekk yaa ngi xawi sa morom sutura mais dëgg la yéen ay wax ne mujjum jamono yonent bi nee woon na dañuy dinañ dem ba tollu foo xamante ne nii lu waaye xamal moromam wax ko di weerante te loolu yàlla suñ boroom bugg ko yàlla dafa bëgg kuy suturaal doomu aadama diw def na la nang amoo pexey faj ko demal si yoon mi nga xamante ni moom moo fi nekk di àtte pour mu àtte mais di toog di wax di wax xale yeeg mag ñi ku nekk yaa ngi commencé sax di yàq xale yi ci loo xamante ni nii tàmmuñu ko woon def ku ci mel ni euh, beneen femme bi di joteeg Mami Cobra bërki démb bu wax si affaire indi woon nga ko fii bi victime du net mu wax ci lu baax nit ñi apprécier ko ah. mais pourquoi ci lancé boobu mu bëgg ay moroom nitam bëgg la yóbbu foo xamante ne nii yow nekkoo foo woon waru ko nangu aussi ah. dañu waxante dëgg jërëjëf Adja kon mi ngi noonu wax na dëgg barki dem rek maa ngi ko dégg moom moomu ci benn vidéo mu naan fii ma tëdd de ku ma nangam laay xaar te xam nga loolu dafa doy waar ci ab vidéo ab jigéen nga toog ni ku ma nangam laa bëgg fii ma toog dégg dégg ma sànq fi may waxee waaw jeex Adja kon daf mel ne mujj nañ leen a bàyyi mais avertir nañ leen pour la fois passée bu buñ ko prochaine fois ko defee buñ ko leen ko defaatee xam na leen ci fekk. waaw maam sax mi ci live ba ba mu ba mu ñibbisee rek dafa dellu ca live bi nee na nee na euh, bàyyi na affaire différent ak Mamy Cobra parce que dañ ne ko avertir nañ la buñ la boo bu ngeen boo bu ngeen ko defaatee buñ la jëlee dañ leen di defeere nee na moom léegi ci commerce am rek lay lay kii maa ngi koy liir léegi ci kii bi net bi donc muy loo xamante ni maa ngi la koy wax sànq bi nga nee danga koy indi euh, son yi bu ay kàddu yu ñaawee noonu mosuma koo dégg uh-huh. ay kàddu yu ñaawee noonu mu leer la ni TikTok bi ñëpp ci ñëw góor jigéen mag ndaw ñëpp a koy seetaan man mii jigéen en tant que jigéen am na ci yoo xamante ni bu ñuy wax ba ci yàgg ma damay puus parce que rus naa tam bu ma pourtant man dong man maa nekk. mais c' est bien ba leen cybercriminalité woowee ba ba ba avertir leen il paraît que keneen ki sax dafa ñaan ba suba pour dem wuy ji xam naa peut-être dafa indisponible wala dara. xam naa moom it bu demee ñu avertir ko il est temps que nag ñu ñu jàllee lii parce que TikTok bi li ciy xew bari na trop. yàqante bi bari na trop saagante bi wax ju ñaaw ji dañu dem ba nga xamante ni suñu valeur yu bari dañ koo perdre léegi mm-hmm. ay jaay yu kenn xamul yoo xamante ni yow alaa la sax baaxul sa diine tere na la ko sa santé mayu la ko dañ koy wax dafa am loo xam ni jaru ko jaru ko kon bu ngeen ciy def dara yàlla di leen ci suturaal ngeen ciy am dara di yóbbu seen njaboot ak di def wax dëgg yàlla jarul jarul jarul ñu ciy saagante di ci yàqante lu ñaaw di ci yàqante ay askan c'est bien cybercriminalité li ñu def nii lu baax la dañoo mm. autosaisir te baax na macha allah Ndiogou sujet baa ngi noonu gune mujj nañ leen a wax ni leen daal man ngeen a dem. Mhm. avertir leen pour beneen yoon bu ñu ko defaatee. waaw pareen saay police euh, dañuy liggéeyee noonu parce que loolu euh, da ngay da ngay leen di bàyyi parce que li ci penc mi yëpp police a nga koy gis. Mhm. Euh, mais souvent da nga naan ma waa police fu mu ne. Mhm. mais pareen saay da nga leen di bàyyi ba ñaar ñi nga xam ni ñoo ci gën a fës ba ne lay. ba jóg ci kaw nga ne leen kaay leen bu ko defee ñeneen ñëpp dañuy noppi te kenn leen ko wax da ci kaw nga régler problème bi yaa ngi régler ñeneen ñu doon waaj a saaga ak ñeneen ñu waroon def yenn kii yeeg loolu mhm. parce que dafa am yoo xam ne ñoom euh, man dama doon wax sax ne par exemple est-ce que du dañuy créer ay xuloo pour set business yi waaw masoon nga ko di créer yëf yi quoi buñ jógee fii xuloo fële buñ jógee fële waaw mais xam nga xam nga waaw mais xam nga non xam nga pareen saa yi tamit euh, del xool lu am ñi sénégalais dafa am lu mu bëgg rek nit ñu dañoo bëgg ci ay coow de. beneen euh, saa parce que am na benn femme bu def video ni bàyyi leen coow li yéen a ngi koy yëkkati te xamul leen fi mu mën a yegg keneen ci live keneen ni ko soxna si bul wax coow li warut a fay. <laughs> mu ni ko mu <laughs> nii nii en direct. fi mu toll nii loolu loolu la ñuy wax ni fi mu toll nii ñu ngi nii ma a ngi nii di sedd nii di kii te saa yu demee moom lay yooyu lay wër di seetaan coow yooyu coow yooyu laay bi man loolu man loolu ma la a mais pour sa liggéey ñu ngi koy indi tey affaire yi mais damay wax ne man loolu laay wër ñaan ay doom yi li ñuy wax déglul kii <laughs> eh, ay déglul saaga kii man alaaji da nga ma mës a ñëw ma ne la déglul saaga kii <laughs> lay déglu may wax noonu nag maa ñemee déglu ay ay débat laay déglu man waaw xam nga yooyu yooyu nga xamante ne bi moom lañuy moom la def. Hmm. Eh, ñoom nag dafa am lu ñu umpale. Hmm. xam nga nit ñi moo tax gis nga pareen saay eh, xamuñu li ñuy def noonu fu mu jëm tey rek lañu xam ñoom dañoo mesurer mbir mi ci jamono ji ñu ciy wax. Hmm. te xamuñ ñi seeni sët danañu gis loolu li ñuy wax nii maanaam mesuré wuñ yëf yi seeni doom dinañuy gis yëf yi seeni doom danañuy jàng ji ca école ba ñaanal déglu leen seen yaay dina am foo xam ne fii jamono ji ñu koy def ñoom yëguñu gravité bi ni ñuy gaañee seen bopp xamuñu ko de mais ca kanam la ñuy comprendre ne bu démb doon tey du lii duma ko def mm. parce que amut dara lu jar yenn wax yi ngeen koy waxante ci loo xamante ne bi tey ñëpp a yor vidéo ya comprendre nga vidéo yooyu yow mënatoo ci dara def nga ko ba pare léegi mi ngi ci nit ñi ëllëg si biir keneen dina jël vidéo boobu xeexee la ko yow ci beneen xeex bu du doon mm-hmm. xeex bii ngay xeex si te bu boobaa dana la gaañ donc moo tax il faut que ñu moytu ca ca mbay ma bu ñu ko loolu leneen waaw na tukki. kuy càmbar mooy tuyeen bi ma ne jomaay mi ñuy génnee mu nekk ca tool ya. moo tax ah. di ko saboté. waaw buñ ko xamaloon lenn. xam nañ ne tool yooyu koy yëkkati sax. parce que ñun dañoo woote pour wax la rek ngir jublu ci mbay. ñi ñiy xam nga ñooñu. ñooñu dañoo xamut parents yi dañuy tagg nit ki. Mhm. te xamuñ ni ñu ngi tagg nit ki. d'accord waaw koo xamante ni kii. Eh. loolu fierté la. macha allah tool ya. fierté la. tabaarakallah fierté la mbay ma. jërëjëf ajaratu boobu ñoo ngi tuub di jéggalu bu baax a baax. Mm. xam naa joxante ab dig rek. wala boog ba altine ak jàmm ah. ah ma ça va. incha allah merci beaucoup. jaajëf ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñi ñu bokkaloon plateau bi également di leen jox rendez-vous lundi incha allah ci kàttanu yàlla.